Euh, jërëjëf euh, ñu delluwaat fii ci Star TV Emma Sport euh, Bantaba comme ni koy far di gën a defee fii si biir lii di a kër gi far nañ nag di gën a xool lépp lu nga xam ne rek moo yëngu si wàllu li di tàggat yaram fii si biir lii di a réew mi astuma football ak yeneen activité ak yeneen sport nga xam ne ñu ngi fii si biir lii di réew mi tey nag ma am programme bi ak kii di Ibrahima Kampo Ama jata balaa ma ko bàyyi mu nuyu rek ñu gaaral leen programme yi nga xam ne tey moom la ñu war a waxtaanee. Euh, fii si biir lii di ama kër gi euh, tey nag dinañ xool lu nga xam ne rek euh, moom lañ demoon xool yi mooy kii di ama Lamin ama Jallow Lamin jaalo moom nag nekk ndaw lu nga xam ne mu ngi fii si biir lii di ama réew mi si wàllu bi di holiday di play foofu si biir lii di Italie Syria bi moom nag nekkoon ndaw lu nga xam ne nag am na lu luñ ko defaloon si part one special profile am Euh, jamono bi nag euh, profile bi nag mu ngi si waajataay jeex bi euh, mooy ma partout bi daanaka sax mu ngi ñëw jeex moom mi Lamine Diallo nag demoon nañ nemmeeku ko foofu si biir lii dem ak kiram waxtaan ak moom xool lu nga xam ne tamit rek loolu la sampa fii si biir lii dem réew mi. benn kii di Cuka nekkan doomi Gambien bu nga xam ne moom it doon play foofu si biir lii dem Guinée Bissau play na fii si biir lii dem réew mi moom mi di Cuka nekkan ndaw lu nga xam ne nag ne Bissau bëggoon nañ pour mu naturalise Euh, foofu si biir lii di Guinée Bissau def na ñetti atem euh, pour gis kii di Chuka pour mu ama euh, naturalise waaye loolu nag mënutoon na ama antu ba tax na nag moom mii di ama Chuka jamono bi pare na pour play lii di réewi Gambia dinañ waxtaan ak moom xool loolu fan la ak pour play lii di réewi Gambia dinañ tamit xool yi activité bi nga xamoon xewoon na démba foofu sa Banjul Banjul gisoon nañu Saint Augustine Euh, présentation bu nga xam ne nag xewoon na foofu loolu tamit nekk na leneen lu nga xam ne euh, dinañ ko waxtaanee fii si biir lii dem euh, kër gi dinañ xool GFF recommendation night bi tey jamono bu nga xam ne nag war nañoo delloo njukkal Lions yu nga xam ne ñoom ñoo fi defoon lu rëy si wàllum li di football tey la war a xew foofu sa OIC foofu sa Sénégambia Euh, loolu tamit nekk na lu nga xam ne tey dinañ ko waxtaane fii si biir lii dem ak kër gi euh, kon nag lu ñoo def rek mooy dinañ bàyyi kii di Ibrahima Kampo Diatta euh, nuyoo balaa ñoo laata bokka duga si biir lii di programme bi waaw jërëjëf ñu nuyu suñu viewers yi ñu dee xam ne ñu dee seetaan à Star TV at this time mm, ñu ko gànnee stay tuned and never touch daal comme dégg na a head headline yi comme noo ko noo ko waxee so naga stay tuned rek and and then you show cause seen sport a Bantaba la alright euh, jërëjëf thank you euh, loolu nag lañ koy defee euh, fii si biir lii de ma kër gi comme nu ma ko far di gën a waxtaanee rek lu ñu njëkk a xool mooy dinañ xool ndaw lu ñu ooyee kii di ama Chuka amoon waxtaan bu nga xam ne nag def nañ ko ak moom moom mi di Chuka si waxtaan boobu nag gaaral nañu ne moom pare na pour player lii di réewi Gambia jamono bi jamono bu nga xam ne nag yàgg nañ koy topp pour rek mu war a ñëw player lii di football fii si biir lii dem réew mi. Euh, waaye mënutoon a antu euh, jamono bi nag moom mii di ndaw loolu euh, pare na pour play fii si biir lii de ma réew mi bala ñoo dugal ma vidéo bu nga xam ne rek amoon nañ waxtaan ak moom ci lu gàtta waaye nag mu ngeen a saan full programme bi si kanam tuuti rek di ngeen ko mën a seetaan waaye lu ñu def rek mooy dinañ bàyyi kii di de dema ñu ngi woon foofu si biir lii de dema këri kii di cuka pour waxtaan ak moom xool fan la toolu populaire lii Gambia naam sax bisaaw Euh, buggoon nañ pour mu pleel lii di ama bisa waaye nag moom réewi Gambie la bu pleel Kampo euh, ci ko ndaw lu nga xam ne euh, gis nañ ne jamono bi pare na pour ñu mm. pleel lii di ama réew yam am lii di ama réewi ama Gambie quickly rek lan la ci ko mën a joxe fii si biir lii di ban kind of caliber player la si national team bu fekkee ne ah, lépp dem na koo tuur waaw soo moomee abat cukat naa naa kontaan daf bi am ne nekk na xale boo xam ne always ambition bi football moo ko euh, euh, utile soo ko waxee bu nekkee xale yi football la bàyyi na school sax. Mhm. because of euh, football nekk na play boo xam ne dafa gum boppam always. defender la boo xam ne daf leen ma play half back daf leen ma play half back right left ak daf leen ma play centre back daf leen ma play tamit six tamit. Mhm. nekk na koo xam ne is very agile te dafa te dafa bu ndaw la nag xale bu xale bu ndaw la bu ko man ëllëg maa ko mag tuuti. mosuma play moom bu ko man maa ko mag tuuti bu ko moom mosuma rakk ñoo dee ñoom sa ñu ñoom ñoo bokk a team xam nga sonta dee play war a war a suñu fiil foofu Bakoteh school ak Bakoteh ak mboyo fiil bi yëpp su nekkee play play loolu bu play na fi na fi euh, wàlli daan play ko ñaari sax ba juuti injure ma ko doon disturb but ajona fi dee mu dem dina bisa am fa six months rek fat euh, agency capa ko ko euh, Portugal FC Porto direct dem football tam dafa make something gars yi bu ko loolu si beneen team. bu dee accept beneen so moom story mi daal is is is is uh, is very sad comme ni nga ko dooree but xale la still now mu ngi twenty twenty twenty twenty twenty a si football et am si national team bi Gambia. definitely nekk am a very good uh, player lu ko player boo xam ne dafa agile am na hype mm, mm. bi. te akuri mm, bi calculation bi dafa ufa baax ja njool la su ko amee ñoom partnership bi ah uh, OJ ko teg si dikka bi woo si. half back right wo half back left wo daf koo play because right now ku kuy play Austria euh, Vienna. loolu hmm. la ko tibb ndaw in Austria boobu foofu la Salzburg nekk hmm. ak Rapid Vienna ca la nekk Salzburg bu doon dangante ak Liverpool. Liverpool seen team si dañ lay doon nuyu. soo essayé essayé ñoom Sadio Mané yëpp foofu lañ bàyyee ko hmm. euh, ñëw si Premier League bi euh, di def loolu loolu jamono bi. waaye mu ñëw Salzburg am fa two season nag move to Southampton, Southampton to Liverpool. So it's a stepping stone, but it's a semi-professional, uh, semi-professional pro league. Uh, la. Okay. Teams you bury them on uh, sign for players. They like Bundesliga because they close to Germany borderland. Okay. Spain, then they sign for players. England, then they sign for players. Italy, then they sign for players. It's a, it's a, it's a, it's a chance, la. Okay. But the most important thing, like. na ñëw play Gambia comme na ko def soo amee na national team cap sa level bi daf lay gën a high team si dalee lay mun a gën a because am nga national team cap because is a you are an international player so ci kat tabi tabi player boo xam ne mu ngi play sa lefin bi cabango hmm. mu doon comfortable with the ball affaire sa audio sax dafa dem si kanam sax moom mu des ci gannaaw ba ñu bëri ñu ngi laaj kii kan la kii kan xam nga rek. léegi moom digle na ko dem bu ko play Gambia. ok de autorité. def di right channel. di right channel ñu mm-hmm. ngi ko à. Mm-hmm. inverti mm-hmm. comme yow tam ay ay nom yu try di pour dem mu ko jot. daal mun ko investir national bi. alright uh, thank you very léegi lu ñoo def rek mooy uh, dinañu xooli interview bu nga xam ne am na ñu nañu ko ak kii di Ama Chuka uh, foofu sa ama baa Bakoteh. Euh, si kàddu yu nga xam ne nag gaaral na ko waaye comme ma ko waxee rek euh, dinañ xool full interview bi dinañ xool euh, lépp lu nga xam ne rek jaar na ko lii di Gambien su nga xam ne ñuy pili tamit fii football ak autorité tamit am na kàddu yu nga xam ne yaayu cuka tamit sànni na ko si ñoom pour ñu bàyyi si xel bu baax a baax lu ñu def rek mooy nañ dem xooli cuka waxtaan bu nga xam ne amoon nañ ko ak moom foofu si biir di Bakore delluwaat fii si Star 21 ñu dellusiwaat uh, kii di Lamine uh, defoon nañ part one uh, profile am bi tey nag nañ dellusiwaat fii si kër bu nga xam ne jamono bi moom moo ko sampal li di waajuram bu góor. si seen ñëw very happy to be here ñu dee ma wax na ma comme tey da naa ñëw soo man tam préparation boppam bu baax accept naa invitation bi pour ma ñëw ma wax nga xam lu si man tamit ak. ak euh, fans yi tamit ku nekk foofu noonu ak dëkk bi si boobu. ok alors Coach ngeen mën nañu euh, ma xam euh, ci jaar jaaram si force fii si division ligue bi balaa ngaa dem foofu si biir lii di Bissau from there to Europe ndax mën nañu xam tuuti information about sa fii si biir lii dama ligue bi. waaw ligue bi bëri ñu nga jàppee Guinée Bissau play. waaw waaw digga la digga la um, fii laa juddoo fii laa def everything and then. now Fila did everything. It was uh, Baptist Academy. And then from there now, play Nawetan, Fila Godef, Fila Mohammed. And from there, Madam Potts, because for Potts Money consumer first divisional team more play. Why Yaguma Fanak, uh, Bena season with Lafa play, play Nari game Lafa play for me. Wow, Nari game. Then after I'm a Ganyu and Suma Um. So after Ganyu, I'm a top one year, I'm playing up. Then from there now, I'm a top Fachima Baba. Euh, Sidawo group food then from there bu ma paree foofu noonu dem try Walidan Walidan tamit benn game laa fa play so ma play Walidan benn game tamit after ma ñëw am opportunity ma ne ah bàyyi ma génna because fii nii ma ko miin Gambia fii nii so bàyyi ma génna ma dem ma try suma lock outside and see so si la dem Bissau so euh, Bissau bi am na suma benn daat la si like me so much he ma woo ba dugal moo ma link bi ma Aziz ñu dem so bu demee it was so successful six months laa fa am rek and then si ligue bi six months laa fa am and then ma am agent ñaari agent from Porto agent si yooyu noonu ñoo ma scout den bugga ma dem yóbbu ma Portugal Porto foofu laa nekkoon from six months like uh, Porto three four months laa fa def then after uh, abal ma si loolu to uh, Gil Vicente so bu ma demee foofu noonu team boobu noonu nag ma bugga ñu it was Portugal after gars yi dañ defoon baatin soo ñu wàccee gars yi seconde division soo ma coach bi mu seen ma jox ma moo nekk first coach pour ma jox professional contract so after boobu noonu maa ngi fa one year di uh, following year bi ma ñoo am uh, contract from uh, Azerbaijan two years ma door fa two years boobu noonu ma am very good season in Azerbaijan then Australia ñu sign ma so this is how my career went through strike. Euh, ñu ñëw nag euh, si Guinée Bissau euh, gisoon nañ ne Bissau wala seen national ama team bi. pour nga play ne waaye Massa Nation tamit Gambia soxla na trop. Mm. pour nga ñëw play waaye still now mu am lot of difficulties pour war laa mën a am lan mooy ama. ba diggante Bissau ak Gambia euh, because loolu yëpp tamit xëy na tamit motivation bi ak yéeg bi tamit you know dee mën a convince le player pour nañ player beneen réew waaye jamono bi euh, Gambia ñu ngi play si AFCON bi euh, te ñu top for the first time Gambia war a top a group am chance pour war a mën a qualifier yow lan mooy plan si Chuka di kóol bi soxla na la réew mi soxla na la lan mooy plan si right now waaw plan si mooy man fii laa juddoo fii laa xam and then fii laa def suma everything so te lu ma am rek fii laa ko dee andi most of the things ok Bissau oo nañ ma Amady Diekko oowaat nañ ma ñu maa toppa ba léegi but ah, nekkul ne dañ ma si force oo dara donc fii laa juddoo fii laa yaroo te fu ma xel fii la mhm. before bu ma ooyee woon lu ma ongaay woon I just want to be settled before prepare suma boppam mentally physically ma am moo playing time ma xam nga ma gën a religion ñëpp cest su ma ñëwee ma mun a saaf dëkk bi like man tam am na contribute something like am nga which is very important so loolu laa doon plan te yàlla def na ne léegi maa ngi gën a move because of léegi team bu ma du team bu ndaw si bi Austria and then si biir football bi tamit du team bu ndaw so for what I'm leading now, I'm very ready to come and serve for my country because uh, this is my country. alright euh, jërëjëf thank you very comme noonu ko déggee rek euh, Chuka euh, pare na pour playal Gambia national ama team bi yaakaar naa ne c'est very good news pour Gambia pour rek mun a dem jëli ndaw loolu indi ko mu play comme ni ñu ko waxee rek Bissau nekkoon na réew mu nga xam ne bëggoon nañ ko oo oo nañ ko ñetti yoon bu Bissau qualifié even si Afcon bi sax demoon nañ ooyu ko pour mu dem play leen si Afcon bi waaye daf leen jox excuse ne mënut a play as for now ndi parewut waaye jamono bi euh, pare na pour player lii di ama réewi Gambia foog na it's a very good news pour ama euh, euh, the entire GFF it's a very good news pour Gambian population bi it's a very good news tamit pour coach Thompson coach Thompson Field jamono bi coach dinañ try waxtaan ak moom waxtaan ak football authority ba gis ne ni ñoo mun a def ba waxtaan ak cuka team teamam bi pour gis ak ndaw bi ñëw player lii di ama kampo euh, finally uh, tukaparana popularly the uh, national amatin no ga good uh, news la news news news la legi da nga won legi player bi legi la so so dem ci bi sa nationality mo fa nekk but right now player bi happy uh, confess na legi to the whole world ñi gis nga ko boog interview mu ne pare na play jëne bi sa won ko bëre du benn yoon mu ne ñu ko tànk on est aussi last African Conference on bisa loolu moo tax Union Guinée Bissau dem au beneen Portuguese player mhm. ba mun naturalize ku ma Carlo pour pour mu play seen gannaaw bi loolu moo tax sa gars yi pare na pour player ak so now authority dégg nañ ko mhm. I think they will look about it ñu invite ko mu mu mu mu mu give a chance am to the to the nationalité te naa sun ko invité du rusloo gars yi si di potentiel lu mu mun bi ko man am naa ko passionné bi. bi mm-hmm. ko ko ko ko ko laajte rek dana doon ne xam nañ xam nañ player bi bi ko soof soo demee Serekunda West soo demee Cuka Lamine Diaby bi gaa xam nañ ko foo soo demee Banjul nga ne Cuka gaa Lamine Diaby am na ko ñu bëri ñu ngi ko convince player si bëri ñu ngi ko convince il faut suñ il faut expliquer pour mu ñëw player Gambia ba léegi time bi jot na léegi he's confident that dafa bëgg a player mm-hmm. uh, Gambia national team now the authority léegi mu ngi ni player bi usine na boppam so why not we go and take him and ñu try ñu invite ko ñu seet because of it's very sad soo dee player Guinée Bissau xam nga soo un gars fii nga judd fii nga yoroo yëpp moo wan na ko so fii la koy wan ne keep on the hard work because in future player Gambia tamit daf la gën a may nga mën a play moo nekkoon lu nga xam ne rek wa am ne waxtaan ak kii di uh, ndaw loolu ñu gën ko amee kii di a Chuka Euh, comme ma ko waxee rek dinañ leen jox full interview bi gën ñu ñu topp rek fii si biir lii kër gi euh, bu pare rek incha allah di ko mën a ama euh, seetaan lépp lu nga xam ne jaaral na ko fa Euh, mooy jaar jaari euh, play am foofu si biir lii di Bissau ak team yi nga xam ne jaar na ko fii si biir lii di ama euh, réew mi tamit nekkam foofu tamit foofu si biir lii di ama Astrid Viana mhm. fu nga xam ne foofu la nekk di play compare tamit ligi Gambia bi ak yeneen lig si fii si biir lii di ama Sub Sahara bi loolu yëpp lu nga xam ne da ngeen ko mën a gis si kanam tuuti rek fii si biir lii di ama kër gi bente rek comme nun la demee pare na pour play ñu nit dinañ def suñu matuwaay ba gis ne Euh, ñi ko war a yëg yëg nañ ko euh, ñu si war a taxaw taxaw nañ si ba gis ne ndaw loolu euh, ñëw na pour dimbale ñu si AFCON qualify bu nga xam ne ñun ñoo topp lii di groupe boobu noonu te am nañ yaakaar ne dinañ mun a qualify for the first time si Africa Cup of Nations foofu si biir li di Cameroun Yaoundé buñ bàyyee ko foofu nag dinañ dem xool yi am Lamine Diallo Lamine Diallo nag comme ma ko waxee rek lu ndaw dinañ ko xool si interview bu xam ne am nañ ko ak moom comme ma ko waxee rek Euh, dinañ xool full profile bi ndik Star TV defaloon nañ ko full profile euh, part one euh, fu nga xam ne nag ne gisoon nañ jaar-jaari booy bi balaa moo nekk professionnel footballer lu nga xam ne defal na ko li di waajuram bu jigéen dem si naako bi di ko dimbale si liggéey bi jaaram foofu si Bakaw United Royal di Banjul Football Club Euh, ba yàlla def nag mu dem foofu si biir li di bitim réew euh, jamono bi nag euh, Brek moomu taxaw na si ñaari tànka comme ni ko gën a buggee mu ngi play lii di réewi a di play si force tiimam bi di sol number ten moom nag nekk ndaw lu nga xam ne moom lañ jeexantal lu nga xam ne diggoon nañ ko ko dinañ ko defal luñ dig li di players yi du moom kese rek players yi dinañ leen defal seen li di profile yi bu fekkee ne pare nañ pour ubbeeku dina leen defal lu nga xam ne defal nañ ko kii di Lamine Ama Diallo defal nañ ko euh, ku mel ni kii di ama Solomon Kamfu euh, defoon nañ ko euh, dinañ ko gën a yaatal di ko gën a defal lii di ama players yi fii si biir li di ama réew mi Kampu Lamine Diallo beeg jamono bi gis nañ part two profile bi nga xam ne Star TV ñu ngi ko ko defalal pour rek gën a mun a sensitiser nit yi suñ players yi su duñ jaar luñ def is very important pour ñuy gis tamit seen euh, private life yi ni ñu ko mën a spente euh, lu ñoo def tamit because soo xoolee outside Europe euh, players su amee lu bees lu moo njëkk def mooy si internet si Facebook bi la moo njëkk a dina nekk tamit si seen social media si so yaakaar naa ne Brake def na lu rëy lu nga xam ne Gambien si war nañ koo xam ndi ku déggoon first interview bi meeram bi lu mu wax ak fu ñu dëkkoon ak nu ñu dundee ak tey lu nga xam ne gis nañ ko yaakaar nañ ne football nekk na di move to si biir réew waaw football naka di jouer right direction lii leen lii leen ma defal suñu ah, Gambian ah, mën a dimbale gaay génne leen fan la gaay doore mhm. loolu tamit dafa nekk loo xam ne is very important because of in future mhm. mun nga ko ah, play mu nekk documentary mun nga ko market sax nga jaay ko sax xam nga loo xam ne wol bi nañ seet ko naka nga doore bu ko plaisir am nañ seen jaajar mm. Cristiano Ronaldo bàyyi courant na ko Ronaldo Rivaldo naka la gars yi dooree ñun Zinedine Zidane ba gars yi ñëw ba gars yi nekk ba gars yi agg si at at this stage so the same thing tamit nous sommes beneen player bi am ko bu ko Jadot si amul di taf vidéo Ibou si amul def vidéo war recent génération bu nekk nii dafa gën a inclure ñeneen su nekkee professionnel war a open up naka la gars yi dooree struggle bi ba gars ba nga àgga fii ak la gars struggle woon seen live bi seen footballing career is very good Dexil yoon boobu la nekk te I know Dex start na ko long way. loolu man xaw ma si dara bu baax bu ko sangalee. ak naa koo xam ne moo ñëw ñoo juróon door. waaw mm-hmm. neighbors leen so kooku du ma ne ma a loo xam ne si moom on dirait ne comme dafa réew ay réew waaw comme si football la. but he's a nice person. il faut que sax il faut que sax. Dande mooy ñaata bëggu toog because am waxee na dafa xaw a. arrogant si boobu noonu si biir si biir ko xam personnellement. ñu ne ñu ko xam. it's su su su xuloo yaa ko tooñ always ina si biir fii dañ ne waaw xëy na si biir fii moom si biir fii parce que di football jeex bi Gattuso biir fil bi mu nekk la moo def gaynde la outside outside game a very nice passing it's very humble so bëgg taati taati taati taati play play play boobu la du jote jote kenn always mu ngi dimbale yaayam always mu ngi close to sa family ak friends am ah, ak friends am te loolu moo ne nag du dee mos a disappoint friends am mooy su ñu rek mooy friends am ñoo dee mun a remodel su dee mun a àgg ñëpp sax waaw daf leen yeah tey c'est very open guy bu ma soolee kiram ñu euh, fekk ay nit yu bëri ñu ko toog you know am na tënk nga xam ne you know won nañ la ne fii nga war a mun a am wala because démb man lu ma gis euh, rab yi yéemu na trop because soo wax bàyyi xel euh, sampa manson bu nga xam ne roughly roughly according to luñ jot is ten million Dallas Dallas Pence that na ko ba Jason Bay foofu naa ne nga spend comme benn salle ñaari cabinet soo ko bëggee samba mm. ko yow poros naa ko contation di nga spend one million si just just jeexul sax soo nga war a samba man ak nga war a yu ak semaine def fa ba pare dig good thing mooy. Euh, faykat yëpp. yow war a war a ëpp. because contractor is only from uh, from uh, Benin. Benin waaw so nga war a jël loolu nga war a fa tegu daf laa caaj heavy challenge yaa def daan compare du Gambien quoi even Gambien sax daf laa caaj moo doon bet sax so construction is not easy so ñu ngi ko Mr Good Good la yëpp amul fii de na push up na push up because bii just for the start la. who knows in the future mun naa am dem up to four or five kër yéen a sax mu ren ko yéen a mu def ko jokko yéen a rakam yéen a jokko yaayam jokko moom am maanaam jos bi jos stade la ba indi fusion tamit daal la ko nag contesté rek te na avoid xam nga rek nit yi lu ñëw si biir loolu bu bu ko dee dugg sax na dugg fii nag génne fee nag prouve boppam si pic bi pic bi mu wan gaynde is mentally fit tamit comme last time lu mu defoon although hmm. ñaari game mu si woon play out waaw bu ñu ñëwee dasos ko wan wan na is mentally fit and mentally sound to the public loolu mooy di good response à ah, France bi maa ngi ko wane nag they keep on doing the hard hard uh, uh, hard job te mu ngi am ñaani waajiran loolu gën a ah, ah, important euh, li ñu def rek mooy di ngeen ñu may ama vidéo bi nga xam ne rek euh, am nañ ko ak kii di Lamine euh, loolu pour rek woon askan bi ne la lii moo war a xew ndig ñu wax foofu bëri woon nañ trop ndig yaayam wax na fa papaam wax na fa papaam xaritam yi ñooñu tamit euh, wax nañ fa xaritam yi tamit nekk na ñu nga xam ne euh, wax nañ si euh, profil am bi dinañ am tamit jabaram mooy Subris ñëpp xam nañ ko nekkoon journaliste fii si biir li dama réew mi moom it nekk ku nga xam ne mu ngi koy jàppale bu baax a baax a baax dig ne foo gis góor rek dina am jigéen bu baax ku taxaw si booram pour ngeen koo jàppale mu mun a complete kon lu ñoo def rek mooy nañ dem xool yi chaque shot vidéo boobu noonu après four minutes vidéo la su boobaa nag ñu ñëw delluwaat fi si biir lii di kër gi waaye nag di ngeen ko mën a seetaan si Star TV YouTube bi Euh, tamit di nga ko mën a seen spécial di programme euh, si euh, TV bi fii si biir li dem kër gi kon nag lu ñuy def mooy nañ dem xool yi waxtaan bu nga xam ne am nañ ko ak kii di Lamine Diallo ñu gën ko am kii di a bekk bente ñu dellusiwaat euh, kii di Lamine Diallo euh, defoon nañ part one euh, profile am bi tey nag dañ dellusiwaat fii si kër bu nga xam ne jamono bi moom moo ko sampal lii di waajuram bu góor bu jigéen ñu kontaan bu baax a baax ñu na seet ko tey fii si biir lii di am kiram tey ñu waxtaan ak moom mu ngi holiday fii si biir lii di am réew mi monsieur Diallo first of all ñu congratulé bu baax a baax bala ñu laa nuyu si lu rafet lu nga xam ne gis nañ def nga ko te ñu bëri doon expect lii si yow because ki gisoon part one interview bi. ak partout partout bi dina nekk ay different uh, scénario uh, tey nag uh, ñu congratulate la woon sa yéen. so part one bi nga gisoon nañ ko part two bi tam alhamdulillah so lu ma mun a wax rek you know kontaan naa ba pare tànk you know yàlla because if not God ah, lii du mun a happen so maa ngi gërëm yàlla di ko tànk ak suma waajur yi ak suma xarit yi ñu dee nekk ak suma boor every time di ma motivate ak thank you guys too well ñu gisoon euh, part one interview waame defoon nañ ko ak yow te ñu diggoon gaa yi ne nañ isi part two bi because euh, xamoon nañ am na loolu si loo nekkoon di yëngu euh, ñu gisoon maire bi si jamono boobu ngay dem si naako bi di ko jàppale time boobu yaa ngi play Bakaw United Real di Banjul Football Club tey nag ñu gis ne loolu yëpp ceeñ na ñu gis nga def lu rafet li ñëpp xam ne di nga war a mën def lu mel nii tey lan nga yëg bo daajee kër bu espal jox ko sa daat ak sa eh, bay kontaan naa trop because ah, soo gisee maa dem si naako bi yëpp because pour lii la tey ñaani waajur mooy everything so lii laa doon uti so ah, am naa ko daal trop ñoom. itteel yi non so ñoom kontaan ñu dugg fii soo man kañ awma dara lu ma wax yàlla ak tànk suma xarit suma jabar suma booy yu dee suma boor you know because su nekk di rek soo motivé nañ ma trop lii soo kontaan naa trop you know. Uh, ñu gis tamit rek ne yaa ngi woon si biti di liggéey ak sa contracto bi. Euh, nga ñëw fekk fi lii euh, xëj na mun na tricoté bi yëpp fekkul la fi noo gisee lii ak ndax satisfait nga si lu nga xam ne moom nga bàyyi moom nga gis boo ñëwee. yee kontaan naa trop because moom jógewut fii beneen la jógee soo ma jël jokkal liggéey bi soo ma foogoon ne sax leneen mooy xapun waaye ma tros ko jokk liggéey bi ba pare su ma yi noo bappa ah, defal na ma lu rëy yi noo because moom mi transaction bi moo daanaka daal man moo samp kër bi yëpp non su ma raka soo am ma yeneen boore da leen dee mun a seen baax sax ñu jël sa baax yaa ko waaye moom lu ma ko defar lu lu ma ko seen rek yëpp la réglé non bi ba pare beneen yan bi contracteur bi non ma ko lu ma ko wax yëpp la def yi non soo moom kañ dama ñëw rek du ko gis fi rek surprise yi non kontaan naa trop yi non. well ñëw si tof bi am nañu player nga ah. euh, very rare ñu gis ay yeneen players yu mën a am tof seen biir kër bi euh, lan a waral lan pour nga am tof si biir kër bi. waaw man because dama dee gis ne su ma ñëwee Gambie holiday dama dee am jafe-jafe pour training so ma wax suma broda contractor bi comme dama bugg a si kër bi su ma ñëwee holiday nga gis may am training enough training balaa maa dellu because it's important trop so you need an soo buggee nekka standard boo nekka da war a over over over yëpp so foog naa ne moo tax ma def fi picc su ma ñëwee may continuer training yi du ma disturb kenn si biti wel euh, ñu ñëw nag si sa famille bi euh, loolu la ñu gën a waxtaanee bu ñu demee si biir euh, Kukli rek lu ndaw si sa jabar xam nañ ne wax dëgg nekk na ku nga xam ne ku muñ la ku baax la bokk na si. développement bi euh, tey loo ñu mën a wase sa jabar koo xam ne euh, léegi léegi sax su suñu mën a upload si Facebook bi sax si moom lañ ko dee mën a amee mu nekk koo la woon euh, xam na liggéey bi nekk koo xam ne daal mun nañu wax ne sa backbone si la bokk. waaw mais suma jabar mooy suma everything fu mu nekk ni daf ma dee support trop moom mënuma koo fay no soo gisee tey ñu àgga fi moom la because wax yi bari nañ woon waaye faral nañ suñ noppay daf ma dee dimbale su nekk because mun naa woon ne lu ma lu happen rek moo ko den njëkk a xam before everything so daf ma dee push everything even su ma sax ma amee bad game léegi xam na football trop daf ma dee wane tey lii baawut even ma war a pass pass ma daf ma dee wane da nga war a pass mooy suma coach daal mooy suma second coach si kër bi so everything daal mënu ma ko fay digga digga mënu ma ko fay so am happy non. alright jërëjëf euh, loolu nekkoon waxtaan mu xam am nañ ko ak kii di Ama euh, lu ndaw la rek euh, lu Euh, gisagu leen ko dingeen ko gis nag boo la ñu toppee si Star TV euh, YouTube ama channel bi euh, wala Star TV si boppam. kon nag lépp soo leen ko buggee daal loolu nga def rek mooy try leen ngeen am Star TV ama décoda bi mu ngi fii si biir lii di ama kër gi. lépp latest sport bu la fii si biir lii dema réew mi rek fa ngeen ko gën a a amee fii si biir lii dema réew lu nga xam ne nag mu xew sa bitim réew ak fii si biir lii dema réew mi di ngeen ko am fii si biir lii dema kër gi li ñu def rek mooy Kampo Curli rek gis nañ waxtaan bu nga xam ne rek am nañ ko ak moom foofu sa ama dëkkuwaayam nu ko gisee moom it ne kontaan trop daal ne things is going right way. waaw kontaan na trop parce que di crédit rakam papa li moo tax blood tamit ne bu ko isut mun na ko sama xaalis bi mu jël mu mu def ko leneen ba mu dem baax sax mu dem direct ticket sax mu dem Europe. so xam nga xam nga du ko du fii parce que moo bëgg a bàyyi. ten million du ko du ko yónni mu def effectivement so place bi contrat bi have to be uh, ko xamuloo ko waaw xamuloo ko mun naa jël avantage bi jël sa xaalis daaw même doo ko gis doo ko mën a gis àndoo bi sax eh, raad na mu neen toog beneen dëkka so loolu c'est good job mm. kooku soppee ko lii la rek bu ko trouble lii la plus près football pour dimbale sa boppa pour dimbale sa yaay ak sa papa pour à cent pour cent rongoñ bi ah dream come true the best the most important thing ku nekk da nga ñaan nga am doom xam nga mu mag ëllëg yaa am sa kër boppa waaye tamit sa mu dem am këram mu ne la papa am dugal fi fine Oldoos in in comme suñu colté bu sappo parce que daf ne mën a am kër mu mu ne mu dogalal laay mu ne la maa la may itamit. Eh, na eh, tamit mm, mm. doom tamit mën naa def loolu tamit papaam lii mooy diri njëriñu euh, jur euh, doom so tey right now jur nañ ko rëccuñ ko. although struggle nañ ko bu ñu defee gars because li ko gars spend xaalis depuis moom bu nekk xale ba balaa moom mag loolu mm-hmm. tamit moo dem billion su waree spend xaalis xaalis bu mu spend si moom so moom dafa gars mais tamit duñ ko fàttee duñ ko fàtte mooy delloo jukkal la rek yeah delloo jukkal bi la delloo jukkal waaye tamit famille bi delloo euh, nañ jukkal si Willy Mr Willy Abraham waaw waaw waaw bu baax a baax a baax ah, Abraham because mais bi wax na sax mu ne nañ euh, def everything possible pour yóbbu ko mu gis Willy Muha, really thank you very much. Yeah, for sure. Because, because Muha's play is very, very important part. No, real no, because real when, when they are here to change uh, players' life, comme we look at the time, but they are just a club la, they don't dominate play the business. But if they play, players not dominate. But them in Europe, you have got yaa war a ah, hmm. préférer sa boppa ñoom jaay nañ la force am nañ loolu waaye léegi lay am si mooy ëpp ñoom sax lu gaa di am ak lu ak la gaa jaayoon so di seen team la def ni bu ko gars yi dimbale bi àngale tam am saral bu ko living ba léegi change la fam definitely he have to thank Elijah Barney président te te dina ko dimbale at the end of the day ko so dream come true for Lamin Jallow mun rek xam nga sànni ko xam nga rek ëllëg yàlla dina ko uh, ko fay ma mën ko du mu sa soxla fu mu dem du mu sa soxla because of always mu ngi euh, dimbale famille bi so yàlla tamit mm. loolu la ko fee su doon defoon na xale defoon ko leneen yóbbu ko feneen du kon dafa sona but right now ñun def nii président bi nag du bu sona ba ilaat yow mi din so xam nga ne lii mooy njëriñu doom te papaam tey ak yaayam rëccul waaw loolu kon gaa na yeneen doom yi donc keneen tam mën na ko def waaw moom moo ko njëkk a def donc papaam nekk moo la jur so lii jos daf ko doole jugale waaw mun ta fay waajur because waajur moo ko jël ñu ñu ko spendal ñu ko defal mm. is more than this house mm. so this is just a appreciation la indi la ci wóor bi rek mm, something else ak ñu la spendal fa dafa la bar spendal la jënd la effective ñu dugal si yow is more than the house but li just a appreciation la ñu tray rek ñu ñu fay suñu waajur waaw aduna tam am na kër waaw daf ko jox bii so loolu tamit alhamdulilah ku nekk tam dafa toog mu proud doomam donc ëndi moom la bot def tamit def na ko dara lii tamit sa exemple pour papa tamit ak beneen magam tamit bu nekk ah, Europe tamit ak keneen keneen bépp tamit li tamit exemple tamit il est moom tamit doomam bu jigéen mbaa doomam bu góor moom tamit dafa eh sama papa dafa defal lii papa man de dafa defal lii te sama papa soo dafa continuer. ok lii dafa continuer su ko wane képp du gudd job leen. alright uh, thank you very much loolu moo nekkoon Lamin Jallow uh, uh, si lu nga xam ne rek moom lañ ko defal Star TV nag ñoom ñoo ko def ah, rek kon nag dinañ gërëm bu baax a baax Star TV si liggéey bu rafet bu nga xam ne rek ñu ngi koy def fii si biir lii dama réew mi pour rek gis ne. Euh, dinañ gën a moderniser di sport lu nga xam ne mooy xew foofu sa bitim réew dina fi xew euh, ndig boo xoolee si yeneen réew yi nga xool lu mel ni Sénégal euh, nekk nañ ñu nga xam ne ñu ngi expose seen place yi every day kon yaakaar naa ne ñu nit ñu nga xam ne rek ñoo fi nekk di liggéey si wàllum li di bi war nañu mën a play suñu bopp part bu baax a baax a baax ba gis ne player bu munti nekk fii si biir lii di wall bi dinañ try ba gis ne allocate nañ la xam nañ foo nekka Euh, expose la si media bi expose la si wool bi lépp lu baax looy def rek dinañ ko waxtaanee euh, fii si biir lii di ama euh, kër gi fii si biir lii di Star ama TV kon leneen lu ñoo dem seeti rek mooy dinañ xool ama dental house project bi lu nga xam ne rek amoon na démb foofu sax Saint Augustine ñoom nag ñuy wër si biir lii di tund bi di dimbali. wàllum lii di ama sport démb nag ñu ngi woon foofu si biir lii di Banjul Rohey Camara nag moo ñu fa nekkaloon dinañ dem xooli vidéo yi nga xam ne rek ñoo xew quick interview bu nga xam ne defoon nañ ko euh, seen CEO bi si kàddu yi nga xam ne nag gaaral na ko euh, foofu si Saint Augustine ma delluwaat fii si studio bi ak kii a Ibrahima Kampo Jata su boobaa dinañ dem xooli history making lu nga xam ne moo war a xew tey euh, foofu sa Oasis bi GFF first recommendation ma night foofu sa sis bi kon nag loolu lañu ñu tëjee lii di programme bi waaye nañ xooli vidéo bi delluwaat fii si Star TV Sport Bantaba. football boots the socks the shin So all year round we gather stuff, we bring them out here, we have camps in different places, and then the kids get to keep the stuff and the coaches get to keep the stuff. So this year we started here in Banjul, um, tomorrow we'll be in Serakunda West, where we'll entertain Serakunda West and Serakunda East. Um, on Sunday we'll be in Kitty, and we'll provide transportation from for kids from Tujereng, um, Farato, and Sanyang and they will come over to Kitty and we'll have one at Kitty for all four of them. Um, and on Monday we'll finish up at SOS, uh, which is you know one of my favorite places to be, and we'll, we'll do that for the fourth time at SOS on Monday. So we're looking to expand every year. Um, so we're just hoping for more stuff to come so that we can reach out. If we look around, I think we have like a whole bunch of kids that were not fortunate to get anything today and we saying next time. So but we hope that, you know, as we go forward, we will be able to touch, you know, every child that walks through these doors. But what do you hope to achieve in doing all of these bringing in such a place? Yeah, I know. I mean, you know, every, a lot of people have approached me about, you know, are you an agent? Are you? Do you have an academy? Do you, you know? Um, I think the achievement cannot be measured, um, but we are just looking to be able to provide kids some of these things that they need to succeed if they want to play football or if they want to, you know, if being a professional football player is what they want to do one day. Um, so we're really just looking to touch kids um, individually so that they can go out and be able to do what they do and be able to succeed in what they do, you know. So the achievement is just giving a child a football boot or, or a shin guard or a uniform or a ball, something that otherwise they would not be able to get until they could probably buy it themselves one day. Um, and I think by doing that, then that kid can succeed in what he does and he can come back and help an entire people. Yeah, and the people that you've made mention of are all known for soccer in the country. And uh, the Dante South project this year will be heading to SOS. You know, is football what something that you purposely going to do or other areas of development? Because now you see we're going into SOS that you describe as one of your favorite places. Yeah, it's a great question. Um, yes, when I concentrate, it started with me wanting to concentrate in football. Um, because um, I grew up in loving football and we play postbundao on the street every day. Um, and my platform as a director, as a football director, is access to football equipment. So I'm trying to use my platform to make a difference, and that's why I come with football. Um, but this year we've brought way than football equipment. Uh, we even brought some used clothes, some of these kids that didn't have a chance to have any football equipment. Um, we have some tracksuit and some shorts and, and some hoodies and other stuff that they can benefit from too, you know. And some of these things they can wear off the football pitch as well. So we are expanding and I think, you know, we will continue to have stuff that people approach me all the time with stuff that are not football related. So as we grow, we will definitely be able to cater for more than just football. Uh, so final question, um, Wayne Bangi today, um, uh, the next three days will be hectic of course, and um, at the end of the day, you know, what do you expect from SOS actually, knowing that, you know, it's not a soccer field and you should go and do this soccer, what do you expect from that? Yeah, and um, so we, I visited SOS and had a meeting with Mrs. Toure, who is the coordinator for the village, and um, so we found out that they don't even have a field. they actually play on the basketball court. And um, so when we brought the football boots and the cleats, we make sure that we um, we have some of them with carpet or their um, trainers or tennis shoes. So we make sure that we separated those, and those are the ones that we will take to SOS because they can wear cleats to play on a concrete surface, so they can benefit from those things. So we try to adjust and do some of those things. Um, but Uh, really, we're very excited. Um, this year has already brought some changes because um, back home in Atlanta, we've already filed for the 501c3, which means we are now a non-profit organization. We can now launch our website. Um, we can have a Twitter handler and an Instagram page, and we can accept donations now, uh, monetary donations, which I have tried not to accept, you know, because I just couldn't manage it then. Um, but now we've created a platform that we can do that. Um, in a couple of years, we want to have a tournament um, here in Banjul. We want to have um, occupied four different fields, have age groups from U8 to U12. So there's a lot of things that are planned for the future. Um, next year, we'll even have um, a little coaching course for grassroots coaches that you know, just want to share ideas, really not try to teach anybody anything, but just to share ideas within, um, you know, within our community. Um, so I think that would be great, but uh, we're only getting started, and I think it's only going to get better. Thanks for your time. Yeah, thank you. Appreciate it. alright euh, jërëjëf loolu tamit nekkoon leneen lu nga xam ne rek ñu rafetlu ko bu baax a baax euh, fii si biir lii di ama réew mi si wàllam euh, dooleel lii di ama académie yi fii si biir lii di ama réew mi di dooleel lii di ndaw yu nga xam ne rek grâce bi comme ni ko waxee rek football grâce bi moo ko amee su fekkee grâce bi dox na rek lépp dina dem comme ni ñu ko ama soxle kon nag ñu rafet lu baax a baax Fatou Ba Rohi Camara moo ñu nekkaloon foofu sa Banjul Euh, dañuy joxoon lépp lu nga xam ne rek euh, moo ruuse si wàllum lii di ama event boobu euh, Kampo mu nekkoon very good move to ñu yaakaar dañ gis te moo dina mën a show up pour nga gis ne si grâceul bi dina si mën a mën a focus. waaw bu Liz Liz very important because da gis ne comme grassroot level mooy di best foundation bi <coughs> su baawut lépp si kaw du mën a baax so ñoom seen living organisation bi dañu nekk di dimbale a ah, xale yi pour mun a suuga seen télé am seen green bu ko soo sabee xale yu bëri su gaa ñëwul xale yu bëri tànn bi dañoo dem si mhm. mhm. styliste yi si mhm. koñ yi ah, di toog di taxawaalu waaw ñëw ñëw gaada xale yi xam nga rek encourage gars yi jox leen ay balls xam nga leen xam nga ah, leen xana ah, tactics ak loo xam ne nee mën a dimbal sa mbokk in future mun nekk uli bàññin am nañ ko ay tanji am nañ ko ay yeneen site saane yi yëpp xam nga di dimbale di dimbale youth si post ak ne pour mun a fulfil seen dream ak personal ak education dem ñu mun ko yóbbu door so it's a very good any any any it so because ñoom cere living organisation dem they are looking for training searching for training pour develop because of uh, lii moom la dimbal because xale soo ko starté di ko jox loo xam ne afa baax comme nag won ko lu baax mooy mooy football bu ko xam naa ay capé ay eight years xale yaa fa nekk ay ten years eleven years xale ñoo fa nekk so loolu c'est very good uh, uh, job boo xam ne xanaa la in future leaders of tomorrow te ñooy mhm. nekk président ñooy nekk ay star so it's good nga ñëw nga jox leen loo xam ne dañoo mun a kontaanoo seen bopp su gaa demee tamit dañoo mun a sawar ah, si li ñoo def so it's a very good ah, initiative ah, lu gaa def nii so li nga xam ne képp on di good job na gaa bu stop leen na gaa continue di def lii because lii lay am parce que loolu loolu loolu bëgg a def dafa nga stade ko from the foundation. Mm, mu mun a mm, mm, continuer. Ah, dem dem si kaw daal. alright alright uh, thank you very uh, waxtu na mu jàmm. waaye fu ñu koy daanee rek mooy. Uh, GFF suñu GFF mooy ñu nga xam ne ñoo yore wàllum football fii si biir lii de ma réew mi ñoom nag ñoo def lu rafet lu nga xam ne rek rafetu nañ ko bu baax a baax ni boo xoolee si yeneen réew yi far nañ di am lii di award night di award lii di best player yi goal best discipline team. Euh, tamit most personnalité di xool loolu yëpp nekka lu nga xam ne lu rafetlu la so lii yaakaar naa ne euh, it's a good euh, initiative bu nga xam ne bàyyi ko na si Gambia Football Federation GFF recognition night bi ñu rafetlu ko bu baax a baax celebrating our legend in football Saturday 4 January 2020 mooy tey la war a xamoon mm-hmm. foofu sa OICS mu nekk lu nga xam ne kam foofu lu ñu rafetlu la pour gis ne rek ne suñ legends si tamit ñu recommend lee suñ top scorers yi Euh, ñu recommande leen tamit si guddi yu mel nii so lu rafet la te foog nañ ni euh, as time goes dina gën a mën a rëy ah ba mel nii you know ñoom euh, marka ni ñu koy defee ñoom gis nañ ko ni ñu koy defee gis nañ Sénégal ñoom it seen bos daf day gën a rëy. Mhm. yaakaar nañ tamit bii fooy stade la waaye dina gën a rëy as time goes on. Ah, I remember for the first time, ah, uh, JFF recommend uh, their former uh, players, Stasi. Euh, ñu nekk euh, am na def nañ dara because of is good this the first time boo leen déggee da def seen effet English effet bi da xam ne player of the year da nga ko dee joxe best living ñama del boo leen ooyee English Ballon d'Or da nga ko dee ooyee so yeneen dégg ñu ko def Sénégal ñu ko def tamit award seen legacy seen former players yi so lii is good wax jeefe dinañ award ko ñoo xam ne dañ dee support gars yi dañ uh, dee support GFF dañ lay sponsor gars parce que tamit jox seen best coaches yi seen liggéey seen ñoo xam ne dañ defal something for the country ñu award leen is good balaa balaa di ah, ah, dem at least ako doon loo xam ne nañ ko bu di remember parce que tamit jëf best GFF naka sax administration tamit best liggéeykat best goalkeeper former goalkeeper aangal ah, ak former liggéey si ak ñoo xam ne dañ sacrifice gars yi tamit ñu award leen loolu is good mm-hmm. is something loo xam ne is amazing so this this is the first thing xam naa du mu bëggee dem de dina gën a big nee na ko one of the biggest sport ah, event ah, si dëgg because su dee Gambia Sport Journal Association. ko def waaye di fédération fédération bi ñu ngi everything ñu ngi ëpp contact ak money bi yëpp so why not ñoom ne ko war gën a mën a def mu nekk ay big team boo xam ne dafa nekk annual ten di di just start la because pour dooleel dugal ñoo xam ne dañ sonn si football so loolu c'est very good thing ku ñu waa idea bi nekk xam nga nag bu baax la soo ñu ñëw a gaynde congratulation xam nga nag yàlla gaay gën a mun a am bu bu ëppali Sénégal ba dix huit stade. ñoom ñoom si yàlla suñu waaw suñu daal Omar waaw euh, Ousseynou Ndiaye. Ndiaye soo hmm. jël ko. ñoom bii ñu jaay waaw mu jëlee la football soo nga footballé ci dix neuf even forward effet président nii la rek nii a def parce que Sénégal ko def England ñu ko def so it's good for the first time to recommend their hard work in this country te kan ca fi seen ñeneen seen mel ne awut nekk di dundale waaye tamit seen doom it même problème ne football fàttewul suñ papa suñ papa he give everything to football so ñu ngi leen GFF based the uh, first time to, to, to their celebrities and their uh, achievement so loolu day nag congratulation rek tey aussi so ñu ngi oo mboolem ko gaa jox invitation rek nga dem eight mm. dem nga Uh, waaw ñu gërëm tamit rek euh, sponsors yi ñooy ma Mr Willy Abraham borom OISIS alaw gay joggasam gadi bi gadi officiel waaw euh, euh, ñu ngi si jefe nan boga boga ñu ngi dem sponsor jefe oldu boga dafa waa dana jefe xaalis sponsor event because isur wala jël OISIS because résident la ñeneen ñeneen ñu ngi dem fa ñu pour relax boo tax nga jox na gars seen gadi nam si boori pool bi nga def fa event bi so for the first time la nga def ko fa so in the future xëy na mën nañ ko defee Kairaba mooy ñu def ko euh, euh, beneen hôtel big hôtel ba five star hôtel. Mhm. so this is just the beginning so ñu ngi tànn tamit sponsor moom Willy ak Kamoso ak officiel tamit mhm. ñëw offre de it tout dimbali leen so this is the beginning so soo ko ñu sànnoon ko yëpp si Gambie la des xaalis bi gënul fet everything is blown euh, fi lañ ko defee so good job from the sponsor and I need I think another sponsor will be coming uh, next uh, year so ñu gaaw ne gaaja gaaja ma so this what they so mënut a passé fii so day léegi def nañ yëpp because di former executive ak ñoom ñoom kenn mu seen ignore bi this idea ñoom ñoo di first guy def this idea jéni si tamit dañ def seen boss tamit mm-hmm. but bii for the first time football house di ko def so it's a very good ini initiative so ñu ñaanal gars yi affaire yi di gën a mun a andi su émission bi gën a fa keneen su ñëwee sax na mm-hmm. continuer di ko def mm-hmm. yaa alright uh, jërëjëf thank you very much uh, li la ñu waxtu bi woon fii si Star TV ama sport ama bantaba uh, comme ma ko far di gën a waxee rek dinañ gën a ñëw génne naa jox lépp lu nga xam ne rek moom ngeen soxla si wàllu di football comme na ko rek full interview bi cuka bi kii di ama Lamine Diallo profile am bi Euh, di ngeen ko mën a am euh, fii si biir lii di kër gi euh, Star TV suñu YouTube ama channel bi kon nag ñu dox leen dox daje ba next week inshallah kampo so mu jëli kàddu yes mu ñu kàddu jël jiwa gaane rek ay keep on supporting lam ñu nekk si kër bi seetaan nañ suuf bi comme nag ko profile yi so bi cuka bi tamit interview tamit ak bëgg comme defal président ak finally lun lun lun al famille bi mooy yaayam ak papaam. so comme noo ko waxee rek so su gaa demee si YouTube channel bi ne mën na seetaan moo o more of the pro program so loolu gars yi keep on speaking like always yow tamit because easy wut na ko ñëpp a a def so xaw so ñu laa ñaanal lépp nga continue dundi ba best because def na ko comme sa bopp da nga ko defee pour Gambia although gars yi mënuñ laa fay touristique te mu ko looy def nii kenn mënu laa fay yooyu xam nga bu ko lii dafa nekk Fadi Records yow yaa ko yaa ko yaa ko yaa yaa génnee lii yaa tamit traité tamit duñ duñ datu su defee loolu rek tamit war sport bi dafaa gën a mën a dem to high standard compete with the nagu li our neighbours compete with the European so ñu ngi next week incha right jërëjëf li la ñu waxtu mi woon fii si biir li dem ak kër gi dinañ gërëm euh, contrôle room bu baax a baax dinañ gërëm kii di Aliou euh, Tunkara dinañ gërëm kii di suma Tom mbay Euh, Samsidine euh, dinañu gërëm bu baax a baax si taxawaay bi euh, kon nag ñu jox leen dox daje ba next week incha allah fii si biir lii di ama kër gi Star TV sport Bantaba.